خير البريات وعلى آله وأصحابه نابع الفتل والفيودات ورضي الله عن شيخنا القديم القطب الأقطاب الفرد الجامح القوس الورى عصره قائل كن مع لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ورضي الله عن وارث سره ثم المركز الأنوار والأسرار الأحمدية سيدنا ومولانا شيخ موسى سيسا صاحب الفائدة الكبرى mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax a baax te di leen ziyaara mel ni dikkaat nañ ci seen jataayu xam tey nag seen jataayu xam liñ bëgg a waxtaanee rek mooy la ilaha illallah ak secret bam lambol mu melni nak mom kalimatu la ilaha illallah li ci rot ay hadith bari na lol ba mané su ko wax ci ay jotaay Ayat yi nga xamni mi ngi soññ ci tuddu yalla bari na lol te hit mané su ko wax ci ay jotaay bu ko defé rek dañ ci jël lén ci ay ayat ak ay hadith ak lén ci waxi rijalullahi ku melni مولاي يا أخي أحمد بامبر رضي الله عنه طب الأخطاب أقلني وحي الشيخ عبد القادر الجيلاني مميت لينتي أي وهم الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه لين خمنا السيد علي الحراسم نتل نكتي موم مملني بقى وقتاني لا إله إلا الله نت يومبنا ويومبل تميت ndax la ilaha illallah doy na rek ci tektal ni alquran wax ne tatma qulubuhum bi digrillah allah bi digrillahi tatma innu qulub doy na rek ci tektal ci alquran li alquran wax ne tatma qulubuhum bi digrillah seen xol yi ci tuddu yàlla rek lay dalé allah bi digrillahi tatma innul qulub tuddu yàlla rek moy dalal xol ci tuddu yàlla la xol di dalee te tuddu yàlla rek mooy dalal xol bu mel ni wax la joo xam ne yàlla mu bind jaam ñi moo leen ko wax te yàlla mi gën a bind jaam ñi it moo gën a xam jaam ñi seen borom kon lépp lum ne lii ci la xol di dalee te moom rek mooy dalal xol loolu dafay tegte ne loolu lu mag la yàlla wax ci alquran ya ayuha alladina amanu skuru llaha sikran kasira waaye wasabbixuhu bukratan wa asila yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla uskurullaha dikran kasira na ngeen tudd yàlla lu bari te ngeen di ko sabbal ci ngoon yi ak ci guddi yi ak ci bëccëg yépp boole waxtu yi rek di leen ci tudd yàlla mu mel ni wax la joo xam ne yàlla daf ko digal jaam ñi yalla ya, dafa digal jam ñu pour itu ya ya iya tuddu lu bari ndax boo demee ci habbas da fay wax né mu digal nako jam jàmm ñi rek mbolem farata bu yalla faratal manam utal nako dayo utal nako yamukay utal nako ngant utal nako waxtu mu ne ba mu des tudd yàlla lu yalla faratal ci jam ñi utal na yamukay nga lay wotal na ko it waxtu nga xamne waxtu yi lañ ko wara def wotal na ko it ngànt nga xamne li moy ngant li waxtu wa am nga ngantay def ko rek lolou wàcc na la mu ne bam def tuddu yalla tuddu yalla rek moy li nga xamne yalla daf ko digal jamm rek boyal ko amul dayo amul waxtu amul ngant amul dara fek jamm bi mu nga and xelam rek tuddu yalla daf ko war daiman iman war di tuddu yalla sabahan wa masaan laylan wa naharan mel ni boo demee ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay war dafay wax ne mu ne afdalu ma qultu ana wa nabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah mu ne li gën ci li may tudd man seen yonantu damay sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ak yonantu yi ma jiitu woon ñépp rek gën ci li ñuy tudd mooy laa moo gën ci lépp lu ñuy tudd moom laa ilaha illallah kon li muy tegtal la rek mooy ne laa ilaha illallah dëgg dëgg mooy doyoo bi waaye mooy xaay bi ni ko Sëriñ Tuubaa waxee li annahu gaayatun wa nihaaya ilayhi yantahi sabil hidaaya mooy dayoo bi kenn mënu koo paase te mooy dayteel bi mooy yemakaay bi nag mbooleem ko am jubut ci laa ilaha illallah la jëlee jubam kon buñ koy wut moom njub mu ne nañ dem ci laa ilaha illallah mu waxaat ne moom yonent bi alayhi salatu wasalaam la ilaha illallah miftahul janna miftahul jannati la ilaha illallah mu ne la ilaha illallah mooy caabi aljana caabi aljana yit mooy la ilaha illallah kon mu mel ni nit ki wut gi muy wut ngërmandeg yàlla ak topp gi mu war a topp boroomam te wéetal ko mi ngi ko war a defee te mi ngi ko mën a defee ci laa ilaha illallah te àjjana gi nga xam ne moom la yàlla dëxal jàmm nag képp koo xam ne gërëm na la wala bu yërëm la dana la dugal aljana yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ne caabi aljana jooju mooy laa ilaha illallah bunt nag boo ko dëgmalee te bëgg caa dugg da nga yóbbaale caabi te caabi aljana mooy laa ilaha illallah kon nga yëg ne kon laa ilaha illallah màgg gi màgg ak dayoo bi ko yàlla jox ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mboolem ñi wooteel yàlla dayoo biñ jox laa ilaha illallah te moom rek la ko yàlla jox mel ni boo demee ci benn xadis boo xoolee xadis bu gudd la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog ak saxaba yi di waxtaan ba mu يا رسول الله waay ñëw ne ko كسرت عليها صعير الإسلام فدلني على عمل أدرك به ما فاتني قال لا يسال لسانك رطبا بسكر الله حتى يقول مجنون qulu laa ilaha illa allah xatta yaqulu majnunun dafa toog rek benn waaye ñëw na ko yow ki yàlla yónni màndargay islaam yi de dafa bari ci man lool mu ne ko dama bëgg na nga tegtal ma loo xam ne rek dafa bëgg nga tegtal ma jëf joo xam ne danaa ci dabee lépp lu ma faatoon maanaam lépp lu ma ñàkkoon rek danaa ko mën a amee ci jëf jooju lépp lu ma bëggit danaa ko ame ci jëf jooju danaa ci dabaatale lépp lu ma faatoon waaye danaa ci amee lépp lu ma bëgg ci àdduna ci àdduna ak àllaaxira mu ne ko laa yasaalu lisaanaka sukra eh, man rutban bi dikrillaahi na nga fexe ba sa làmmiñ bu mu daj mukk di tooy ci tudd yàlla mu ne ko qulu la ilaha illa ba pare mu ko wax saaba na len qulu la ilaha illa hatta yaqulu majnun na ngeen di wax la ilaha illa ba nit ñi di wax na yeen da ngeen dof ndax la ilaha illa moy miftahul janna tabi al janna cheikh oh. ahmadou cheikh abdou qadir jilan radiallahu anhu bo demé ci téram bu may tuddee sirul asrar maa ci def ay abiyat yu am solo di wax zikkar ak njëriñ li nga xam ne moom la làmboo wax ne ma aratum an tafuusu wa tarbaxu familu di zikrillahi yaa wa jinaxu mu ne waxtu ngeen nammee texe ak bonofis bu bare bare bare ci seen dund familu li zikrillahi na ngeen jeng jëm ci tudd yàlla yaa wa jinaxu ee eh yéen samay nit jeng leen ñëw ci tudd yàlla nafaqat fasa man bizikri asbaha mu'riman rawdatihi bil fikri yaghdu wa yashrahu mun qad xat sa dëgg-dëgg man kep ko xamna asbaha mu'riman bi zikri xeyna tudd yalla ba lap ci jëm yalla ji ko de bi rawdatihi bil fikri yaghdu wa yashrahu xeyam ak ngontam yépp moy xalaat ci jëm yalla ji xeyam ak ngontam boobu mooy xelaat ci sardewu maarifatu billaahi xëyam ak ngontam yépp mooy maanaam xelaat ci sardewu maarifatu billaahi lu waa joo xam ne fayar saaha fi rawadil maarifi daiman wa lazatuha asha min al akli wa surbi fayartaha fi rawdil maarifi daiman muy bànneexu nag fi rawdil maarifi ci sardewu xam-xam-xam yàlla daiman toujours من اللول دي ولرثتها بانيخم أصحى موغنا نيخ من الأكل يقول لني نيك وصول بعد يقول آه، فيرتاح في رود المعارف دائما ولذتها أصحى من الأكل والشرب نباني خوتي سار ديهم خم خم خم يالله تصور من موغنا نيخ لفلو نيك ولو نيك عبد القادر جلال دار سي تك نه فتوبا لمن بالذكر عمر وقته تخنيل نه كيب كو خامني دوندم غي ييب دا فكو دوندلي دا فا دوندلي مبولم وقتوم تودي يالا مانام مبولم وقتوم رك مونكاي دوندلي تودي يالا لشرعي باب المواهب يفتح يالا نك دا دوكاي ابيل بونتو ماي نك وقت ونيك رك ماي دو دوتي كو تي موم غير ساخو غيم ساخو تودي يالا فيا مخر الاقوام لوذو ببابه اي ين سمي نيت لوصو ببابه تقوى لنك تودي يالا tafuusu bi ahrasi nawali wa tarbahu kon de ngeen gañe ci gën ngaa séeri may wa tarbahu te ngeen amit bénéfice boo xam ne amul yemukaay mu ne woo maha arabtum an tafuusu bi nuurihi waxtu wu ngeen bëggee gañe ci leeru laa ilaha illallah familu lil ahsaabi wa li nafsi sahiwu na ngeen jéng jëm ci na nga xam ne ñoom ñooy kuréelu laa ilaha illallah ñoom la yàlla dénk mbon ma fa fuuxu bihi yaa ayyuhal qawmi jumlatan bi qalbin salimi iqrahu wa sabbihu na ngeen tudd mom kalimatu la ilaha illallah yim samay nit waye nak bi qalbin salimin da ngeen ko tudd ci qalbu bu set iqra'uhu wa sabihu wala nga ne ci tuddu yàlla la xol bi setee bi qalbin salimin lii la si Abdul Qadir Jeylaani daal di wax ci sirul asrar bo demé ci majmu moom bu rawdu rayhin rayaxiin dafay nettali di fa dajale waxi Mawlaa cheikhul Bamba radiyallaahu anhu mi wax ne wa saxa ann al awliya al wasilin werne ne awliya yi nga xamne yegg nañ ci yàlla ñu ne ma wasalu illa ilahi al alamin ken man te yegg ci yàlla borom minde fi bi kasrati l amali ci bari loy jëf lan lu mel nan mu ne kasalaat lu melni bari julli wa hajj bayti baytillahi ak bari al ajnabu yàlla bi wa zakati ak bari joxe asaka mu ne yi bari ko taxul nga mëna yegg ci yàlla bal wasuloo ilayhi bi riaya li jumlatil ada bil inaaya mu ne li fi nekk te nit man maanaam li fi nekk te mën a tax nit ki yegg ci yàlla mooy mu taxaw kalimatu laa ilaha illallah te sàmmo teggin ya bil inaaya inaaya mooy kalimatu laa ilaha illallah mu ne nag sàmmoog tegginu kalimatu laa ilaha illallah mooy mën a tax nit ki yegg ci yàlla waaye bëri looy julli ak bëril dem màkk ak bëril génn asaka ak bëri yeneen jëf yu dul yi mu ne nit ki bëri ko taxul mu yegg ci yàlla li mën a tax nit ki yegg ci yàlla mooy mu taxaw kalimatu laa ilaaha illa te sàmmwante teggin lii mooy tax nit ki mu yegg ci yàlla leen ci aarif billaahi daf ni aqrabu tariqi ila ila duxuli xadratil ilaahiyati zikrullah mu ne li gën a jege te gën a gaaw pour dugal nit ki ci péeb yàlla bi mooy zikkar ndax mu ne li anna al isma laa yufaariqu musammaahu tur wi di tàqalu ko borom mukk maanaam ki ngay tudd turam tàqalu wut ak borom ture tur wi du tàqalu ko borom fala yazalu zakirun yaskuru wal xujubu yatamazaqu say an fa say an mu ne aji sikar di du dañ mukk di sikar aji sikar di du dañ mukk di sikar te nekkul ne kiiraayu dox diggante ak borom diggante ak boromam tatamassaqu ma ngay xotteeku di daajeeku di xar di morojo say an fa say an ben fa ben mën aji sikar ci waxtu wuy sikar rek da ngay gis ni ki ray dox digganteem ak boromam fay dag ben par ben ben par ben hatta yaqumu shuhudul qalbi lillahi ba yalla dal di fenc ci xolam ba yalla dal di fenc ci xolam mu nit ki waxtoo xamé ni mu ngi tudd boromam fay dem bam yag ki ray dox digganteem ak boromam fekk mu ngi tudd boromam ko ray da ngay gis muy dag ben par ben ba yàlla daal di feeñ ci kanam jaam bi jaam daal di gis boromam ba daal di jeex tàkk ci moom su ko defee lii nag mooy sikkar bi nga xam ne mooy jëriñ taalibe lii it mooy sikkar bi nga xam ne it mooy jëriñ képp koo xam ne euh, bëgg naa am naa jëriñ ci yàlla moo tax waykat bi wax ne as-sikru a'zamu baabun anta daaxiluhu mu ne na xam ne zikkar mo gëna mag ci mbolé buntu bo xamné yang fay jaar bëgg nga fa jaar pour yegg ci yalla rek zikar moo ko gën a màgg lu ko fas harasa na nga def ci na nafa man an fas ci mbolé noy na nga ko def muy wattu kon nga taxoog tudd yàlla mun a al sikru anwaanul wilaaya mooy sikar mooy mandargay wilaya manam nit ki bu amé wilaya nit ñi xamé ni kii am na wilaaya mooy dafay taxoog sikar wa man naasulul wusla te mooy soorooru yegg gi maanaam lii jokkale jàmm bi ak boromam mooy sikar li nga xam ne mooy jokkale jàmm bi ak boromam mooy sikar kon nit ku bëggee yegg ci tudd yàlla bi dafay taxaw tudd yàlla te mooy kalimatullaa ilaaha illallaah wa taxqiqul iraada nit ki bu fekkee daf ne moom namu naa yegg ci tudd yàlla bi lii dëggal ne moom namu naa yegg ci tudd yàlla bi mooy dafay taxaw sikar wa alaamatu sixatil badani te mooy wéral ak tàmbaleem ak sóoboom am nit ki mandarga bii wéral na moom mi def na bidaaya pour def na suluk pour dem ci xadaratul ilaahiya mooy dafay taxoog sikar wa dalalatu sifaay nihaaya te mooy tegtal tamit ne moom ku am yegg ci yàlla yegg gu sell maanaam nit ki bu fekkee wax na yegg na ci yàlla luy tegtale na moom yegg na ci yàlla yegg gu sell bu wér mooy dafay taxoog sikar mu ne falaysa wara a zikr soyun dara nekku ci gannaaw sikar وجميع الكثال المحمودة راجعة إلى ذكر بولم جيكو ينتم يب دفعي ديلو جيكا أنا منك بفاك بغنا دفر بطم دفر جيكوم دفر قلم دفر قلم رخص بكنام كي مولم غاك غاكي أك بغ مولم كيراي جمم دي أك بكنام أك قلم أك لهم من كوكو دفعي تقو في ديالة لان تو ديالة ndax mbolem jikko yu bax yi da fay delu ci tuddu yalla wa fada'il zikru aksaru min an bëri naa bëri bari ba kenn mënu ko tudd walam walaw lam yurid fihi illa qawli taala fi kitaabil aziz faskuruni askurkum mu ne su fekkoon ne dara rotu ci zikkar rek lu ba yàlla waxee ci alquran ne faskuruni askurkum tudd leen ma ma tudd leen su fekkoon ne loolu rek moo rot ci zikkar sax loolu doy na kon bu ko defee li muy jàngale rek ak li muy tegtal la rek mooy tudd yàlla màgg gi màgg ak am solo gi am solo ak taxaw gi nga xam ne nit ñi war nañ koo taxaw tudd yàlla te it moo doon loo xam ne moom rek moo mën a jëriñ jaam bi Sëriñ Tuubaa dafa wax ci masaalikul jinaan ne wa annahu waaye wa tarku wa nihayatul rawaaya mooy taxoo mooy tàmbali ma ak waaye bàyyi ko it mooy dayoog baytu mooy dayoog mbewte boobu yàlla rek mu wan gënaa tudd yàlla Sëriñ Tuubaa mooy dayoog mbewte wala iyaasu billaah waxee tuddu yàlla mooy maanaam zikkar bu ñu waxee zikkar ndax dafa doon loo xam ne nit ki dafay toog ba mu neex ko rek dégg ñu ne tour nangam baax na rek mu jël ko ndax loolu dana tax nit ki jëriñu ci wala gis benn bar rek dégg ñu ne laa ilaha illallah baax na rek yow nga jël ko tàmbalee laa ilaha illallah laa ilaha illallah wala beneen xeetu zikkar boo xam ne da ngay dégg ñu ne baax na rek nga jël ko tàmbali ko wax والبلمي تي جواهر المعاني بسيد علي العراسي ولا قدم تير محبوب على عمر فوتي وتعال دا غاي فك موي واخ ن ديدت من الذكر المعتبر عند اهل الله الذي يكون به الفتح من بني خي سكر كي اهل الله mooy alladi yakunu bihi lfathu mooy loo xam ne nit ki daf ci amee fathu wal wusulu ila la ak yegg ci yàlla te mooy loolu mooy kalimatu laa ilaha illallah mooy zikar bi nga xam ne nit ki daf koy téye te bu ko téye da ciy amee fathu ak yegg ci yàlla alladi yakunu bihi lfathu wal wusulu ila llahi tabaraka wa taala mooy loo xam ne nit ki daf ciy amee fathu ci yàlla ba pare am ci al wusulu ilallahi tabaraka wa mooy am ci ak yegg ci yàlla huwa nag al maquusu bil ismi mooy loo xam ne danga koy jàpp ci ndigal da nga ciy am ndigal da ngay dem ci sëriñ gannaaw boo jébuloo ba pare wala nga jaayante ak moom ba pare mu jox la benn sikkar ci sikkar yi ne la deel tudd baat bi wala deel tudd lii nga tax ko moom di ko sikkar mu ne loolu ndigal maanaam téye gi nga ko ci ndigal ci ngay amee fatfu ci yàlla te it nga amee ak yegg almaxuusu bil isni wa talqini min cheyqin aarifin waarifin waasilin mursidin tatasillu suxbatuhu wa tarifuhu bil xadrati loo xam ne da koy jàpp waaye nag da nga am ndigali sëriñ boo xam ne min sayxin ci sëriñ boo xam ne aarifin ku xam yàlla la waarifin te doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ay mbootam waasilin te yegg ci yàlla mursidante am ndigal ak yàlla tamit koo xam ne tatazillu suhbatuhu wa tariquhu bil xadrati nubuwati koo xam ne dafay yeggale ay àndandoom ci xadrati nubuwati te mooy xadratu laahut koo xam ne boo ànd ak moom daf lay yeggale ci yàlla mooy sëriñ boo xam ne aarifin ku xam yàlla la waarisin te doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waasilin te yegg ci yàlla ba pare mursidin day jubal mooy xam dafa am ndigal ak yar koo xam ne tata zillu suhbatuhu dana yeggale ay àndandoom wala dana jokkale ay àndandoom bil xadrat nubuwati ci peeyu nubuwati wala peeyu yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye mu ne laa maa yaqusuhu al insan bi nafsi waxuma rek sikar boo xam ne daf la neex rek nga jël ko mi amoo ci ndigal waxuma sikar boobu de al zikru al maqusu an cheikh an xayri cheikhin waxuma it sikar boo xam ne da nga koo jàpp ci loo xam ne amoo ci benn ndigalal sëriñ wala am nga ci ndigal sëriñ sax waaye nag xayra maxtuuna alayhi nekkul sëriñ boo xam ne am na fatu ci yàlla mooy am xayri sayxin waxuma sikar boo xam ne da nga koo jàppee ci lu ndigal aw xan xayri aw xan sayxi xayri maxtuuna alayhi wala nga amee ko ci sëriñ boo xam ne xayri maxtuuna alayhi amul fatu ci yàlla te nekkul aarif bi laa tamit mu ne kook de halaaku saaxibuhu aqraba min salaamati ala kook ay àndandoom moo gën a jege seeni mucc maanaam sëriñ boo xam ne dafay joxe sikar sëriñ boo xam ne dafay joxe wérda te moom amul fatu ci yàlla nekkul arif bi laa mu sëriñ bu mel noonu ànd ak moom sa alaku moo gën a jege sag mucc maanaam nga tëb rek bëgg a dem wuti wasila di wut wasila boo xam ne moom nekkul maxtuun ali amul ibbee ko ci yàlla xeera maxtu na ali ibbi wuñ ko ci yàlla te it laa arif nekkun arif billah mu kooku noonu xalaaku saaxibuhu aqrabu min salaamati ay àndandoo moo gën moo gën a jege seenu li muy tegte la mooy zikkar li muy baax baax baax jëriñ mooy koo xam ne am na ci ndigal te ka ko jox balaa mu koy jëriñ dafa fekk moom moo ci jox ndigal mu am ibbeeku ci yàlla ba mën a ibbi nit ci yàlla mu am ak wusul ci yàlla ba mën a yeggale nit ci yàlla mu doon aarif billah ba mën a xamal nit ci yàlla yegg ci yàlla ba jeex tàkk ba mën a yóbbu nit ci yàlla ba mu jeex tàkk kii mooy koo xam ne bu joxee sikar nit bu joxee nit wirda wirda wa dana ko jariñ adduniya dana ko jëriñ adduna ak àllaaxira dana ko jëriñ fi dunya wal aaxira te ci adduna ak àllaaxira yëpp dana ko jëriñ mu ne sikar bi mooy jëriñ taalibe sikar boo xam ne da nga koo jël ci ndigal waaye nag ci njëgal sëriñ boo xam ne maftuna alayhi ku am ibbeeku ci yàlla waaye ku am fatxu la ci yàlla mun a loolu mooy jëriñ léegi nag arif billaa yi dañoo wax ne asikru huwa aqrabu mu ne asikru huwa almiftaahu alxadrati ilahiyati mu ne asikru huwa almiftaahu li xadratin ilahiyati mu ne sikar mooy caabi buntu péeb yàlla bi sikar mooy caabi buntu péeb yàlla bi kon lañ cey déggee mooy nit bu fekkee dafa bëgg ci dafa bëgg yegg ci péeb yàlla bi mënta ñàkk rek mu dal di jël zikkar te zikkar bi nag kak koo jox mooy dafay fekk moom ti mu doon koo xam ne waasil la lay doon ku yegg ci yàlla la waaye aarif lay doon tamit ku xam yàlla la bu ko defee lii mooy tax nga mën a yegg ci yàlla ndax ka nga jox ko dafa yegg ci yàlla te man la yegg la moo tax Sëriñ na ومن تعلق بواسر وصل ومن تعلق بهكذا وصل من كيف كو جوك تي كو ييغي تي الله دا ييغي تي الله واي كو جوك تي كو ييغو تي الله دو ييغي تي الله بو دافاي كوم لو مولا شيخ ابراهيم نصر رضي الله عنه وخون ني لروحي لروحي عيب وللنفس عيب وللقلب عين ولي ولي ولي وللنفس عيب لروحي عيب وللقلب عيب وللنفس عيب mu ne xol dafa am sikk ruuxu am sikk nafsu am sikk te lu mu wax du ay naf kon dëgg la léegi nag nit ki nag lii tax sikk yii daal di dëñ ci moom mooy taxoo gi muy taxoo kalimatu laa ilaha illallah sidna ali karamallahu wajha dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dallani ala aqrab tariqi ila allah wa ashalaha ala ibadihi wa afdalaha inda allahi taala dafa ñeenti yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yow ki yàlla yoon ni dama bëgg nga tekkal ma yoon wi gën a jege yàlla te gën a gaaw waaye wa ashalaha ala ibadihi te gën a yombit ci jàmm bi te gënit ci jàmm bi wa afdalaha inda allah te gënal yàlla it jàmm bi dama bëgg nga tekkal ma yoon wi gën a jege yàlla te gën a gaaw gën a yomb ci jàmm bi gënal yàlla it ci jàmm bi mu ne ko yaa aliyun aleyka bi aleyka bi mu daawamati zikrillahi taala fil xalawaat maa ngi lay dénk nga saxoo tudd yàlla ci wet ba pare Seydina Ali na ko ala asil fadila asikru wa kullu naasin saakiruna mu ne ndax baat bi nga may wax ndax baat la boo xam ne ñëpp ñu ngi koy wax وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقوم ساعة ولا وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله xanaa xamoo ne yowm alqiyaama du taxaw mukk fekk ñu tudd kalimatu laa ilaha illa ñu ci kaw suuf mu daal di koy wax ne wa ala kayfiyati askuru ya rasulullah léegi nag naka laa koy tuddee mu ne ko gammid aynayka wasma minni salaasata marratin suma qul anta salaasata marratin wala salaasa marratin mu ne gëmmal sa ñaari bët te nga déglu ma ma wax kalimatu laa ilaha illallah ñetti yoon bu ko defee yowin nga gëmm daal di wax kalimatu laa ilaaha illa llaah ñetti yoon mu koy def yonent bi di def muy def yonent bi di def ba mujj wax ne raaytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la sakka anta anta raaytu rabbi mooy gis naa sama borom bi ayni qalbi ci samay bëtu xol fa qultu falaa waxee ne la sakka amul benn sikk sàkk ne anta anta anta li ma gis yow rek la te mooy yàlla yàlla yàlla rek la li ma gis yàlla la anta anta yàlla la te si jotaay boobu la doon waxee loolu loolu li muy tegte la rek mooy ngëneel li nga xam ne yàlla def na ko ci kalimatu laa ilaha illallah te mu doon loo xam ne dëgg dëgg dëgg lu màgg la dara màggut ba mel ni kalimatu laa ilaha illallah mel ni kalimatu laa ilaha illallah ibnu abbas nee na wa kalimatullahi hiya al aliya bu yàlla waxee baatu aliya yàlla waxee ci alquran lam ci jublu mooy kalimatu laa ilaha illallah kon dara kawewut ba mel ni kalimatu laa ilaha illallah bu ñëwee ci xadis bi nga xam ne inti bi alayhi salaatu salaam nettali na ko ci yonent yàlla Moussa ba yonent yàlla Moussa di waxee ne yaa rabbi allimni shay'an askuruka fihi wa ad'uka bihi yow yàlla maa ngi lay ñaan xamal ma loo xam ne danaa la ci tudd te la ci woo yàlla ne ko qul laa ilaha illallah na nga tudd laa ilaha illallah Moussa ne ko kullu ibadika yaqulu hada ñëpp ñu ngi laa ilaha illallah yàlla ne ko yow Moussa qul laa ilaha illallah waxal laa illaa illaa ndax inama uridu shay'an taxussuni euh, Moussa ne ko dama bëgg nga jox ma loo xam ne danga ma koy jagleel loo xam ne xaas lay doon ci man taxassus lay doon ci man danga ma koy jam danga ma koy jagleel yàlla na ko yaa Moussa law anna ahla samawati sab'i wal ardina sab'i fii kifatin wa laa ilaha illallah fii kifatin mallat bihinna laa ilaha illallah mu ne xanaa xamoon yow Moussa ilaha illa teg ko ci balance jël asamaani juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar ak lañ ëmb yëpp teg ko ci balance mu ne ilaha illa dana leen wat nan laysa ala ahli laa ilaha illallah waxsatun fi quburihim wala nusurihim ñi nga xam dañuy tudd laa ilaha illallah duñ wéet mukk ci seen bàmmeel ak bis bu ñuy dekk wakka andi bi ahli laa ilaha illallah yanfuduuna turaaba an ruusihim ويقولون الحمد لله الذي أذهب أذهب حنا أذهب عنا حسن من دافا ملني من ينتبه عليه الصلاة والسلام نينا نينا خمنا دين يتود لا إله إلا دون بيد مكت سن بامل تدون بيد مكت سن دك من دافا ملني من مانجي جيس نينا خمنا نينا يتود لا إله إلا تموي أهل لا إله إلا من ينفدون تراب عن رؤوسهم نيجي داج سوف تسير بقي ويقولون نيجي وحدا الحمد لله الذي أذهب عنا حسن ñu sant yàlla mi nga xam ne bind na ci ñun ak njàqare nabi ne nag nee na fa yafyadu wujuhu wujuhum ñii seen kanam daal di weex tal ngir tudd nga xam ne ñu ngi ko doon tudd laa ilaha illallah na ana laa ilaha illallah naka tudd laa ilaha illallah unsun li muslimin inda mawti yi mooy wétti li jullit ci jamono ji muy dee waaye wa fi xabri yi ak ci bàmmilam tamit wa xiina yaxruju min xabri yi ak jamono ju muy génne ci bàmmilam yunus salaa salaam teg ci ne laa ilaha illallah mooy wéttali nit ci jamono ji muy dee na laa ilaha illallah mooy wéttali nit ci bàmmeelam na laa ilaha illallah mooy wéttali nit ci jamono ja nga xam ne ma ngi génn ci bàmmeelam te jamono jooju seen kanam yi dafay weex tar mooy ña xam ne ñu ngi tudd laa ilaha illallah ki képp koo xam ne nag du ñooñ laa ilaha illallah mu ne da gis kanam daal di ñuul kooku waaye yas foo seen kanam daal di ñuul kooku ndax ne mooy laa ilaha illallah yàlla wax ci xadisul xutsi na لا إله إلا حسني فمن دخل حسني أمن من عذاب لا إله إلا مو سما كاران كيف كتب لا إله إلا دغنا في سما سانة كيف كدغ في سما كان ما نم سانة يالني نكي موتنا في سما بغل كون لي مسل نيت تاي اك الله موي لا إله إلا الله اك سكر بام لامبل نك لوتاخ موي سيرن توبا مو ني فكل من ذكرها مفتقدا مضمونها دخل الجنه تقدا كيف كتب كلمه لا اله الا الله كل من ذكرها مفتقدة مجمكو فاسكو في قلب أي مضمونها مقامون مملام دخل الجنة قد كي إلا الجنة رك ما يكرم بقدر في الله لم يتكل لرك ما ما جبين خم نكلمة لا إله إلا ما جنك بقدر في إنك مملني سيد علي عراسي دفن نتلي تجواهر المعاني من سيدنا سي أحمد تيجان رضي الله عنه يذكر الله عز وجل في كل أحيانه na si Ahmad Tidiane radiyallahu anhu daf daan tudd yàlla ci mboolem waxtoom ak jamonoom ak dundam yépp mu ne laa tufariquhu subhatuhu kurusam mosta tàqale ko moom yuhibbul al iksara min zikrillahi daf daan bëgg baril tudd yàlla man dafa bëggoon tudd yàlla di ko baril wa yahuddu alayhi te soñe lu bare bari ci nit ñi di bari tuddu yalla ne kurusam ta tàqali ko mom ngir bari gim daan bari tuddu yalla te bëgg ko bari tam daan ñaaxé lu bari pour jàmm yalla di tuddu yalla lu bari bo ñëwee ci cheikh ahmadu bamba radiyallahu anhu al qutb al aqtab al fard al jami moom def ne faasat xayaatiya bi zikrillahi wa bi muhammadi rasulullahi mu ne sama dund yépp texe na ci tudd yàlla maanaam tudd laa ilaha illallah muhammad rasulullah sëriñ tubaa nee na gis ci loolu la sama dund yépp daal di taxee wa tahiran kulliyati min danasin sirri wa qalbiya wa ruhil qaddasi mu ne tudd maanaam tudd yàlla moo laabal sama lépp ci mboolem tilim yi ak gàkk-gàkk moo xam sama suru la wala sama xol la wala sama ruux la lépp sell na te mu ngi ci tudd laa ilaha illallah sirri yi sama mbóot wa xalbi yi ak sama xol wa ruuxi ak sama ruuxu yépp xaddas sell na te li ko sellal mooy zikrullahi mooy tudd yàlla zikrullahi tudd yàlla mu ne wa tudd laa ilaha xawaytu laa laqee fawsan aziman mu taxe gu mag wa bihi ci tudd yàlla xawaytu fawsan aziman laa laqee taxe mag dunya wa uxra ci àdduna ak alaaxira wa kullu ma nawaytu ak lépp loo xam ne yéen woon sama dund lépp lu ma bëggoon rek jot naa ci te maa ngi amee ci tudd yàlla wa bihi xawaytu fawsan aziman dunya wa uxra kullu ma nawaytu mu ne karamani allahu bi saxi sadri xubban wala ilaha illallah yàlla terelee na ma leeral sama dënn ngir bëgg gi ma bëgg laa ilaha illallah te di ko tudd waxaat ne ak faalee siram masuuna allahu yàlla wuñil na ma mbóot mañ njoŋeel te mooy mbóotum laa ilaha illallah xubban ngir ak bëgg laa ilaha illallah laa ilaha illallah waxaat ne atfatu naara kaydi man yaxsal ma allahu bi laa ilaha illallah mu ne fay naa safara Ma'nam safara pexe nga xamne ne may na iblis iblis pexeem lu muy mag mag serigne manam serigne touba neena ay ilah ilah ilah ko fayé billa ilaha illa la ilaha illa allah pexe bu ma am ak la reuy reuy ak lamuy bari bari pexe serigne touba pexe mom moom ko la ilaha illallah na la ilaha illallah usfi biha amri la ilaha illallah ci la sama mbir yeb selé man serigne touba na laa ilaha illa udxulu biha xabri ci laa ilaha illallah laay duggee sama bàmmeel laa ilaha illallah uskalu biha misaani ci laa ilaha illallah laay diisalee sama misaan mooy sama peese bu ñuy pees sama jëf Sëriñ Tuubaa nee na laa ilaha illallah mooy diisal sama sama sama sama jëf man waxaan laa ilaha illa urdi biha rabbi ci laa ilaha illallah la ma sama borom gërëme kon léegi liñ ci war a déggee ñun murid yëpp ñun taalibi sëriñ bi yëpp liñ ci war a mooy mbir mënta sellee ci lu dul laa ilaha illallah te li gën ci lu nit di duggee bàmmeelam te mu mën koo musal mooy laa ilaha illallah li mën a diisal balance nag ëllëg yow man xiyaam mooy laa ilaha illallah ndax Sëriñ Tuubaa nee na man ci laa ilaha illallah laay diisale sama misaan te ci laa ilaha illallah it la ma yàlla gërëmee urdi biha rabbi ci la ma yàlla gërëmee kon ngëm mànde ak mbir mu sel wala ak sel rek ak li wëti leen ci bàmmeel ak li tax bu ëllëgee yowmu qiyam baax baaxam ëpp mbon mbonam mooy mu taxoo kalimatu laa ilaha illa mu teg ci ne man arada an laa yuxsiyahu llahu fal yu zikra llahi képp ku bëgg ëllëg bu la yàlla gàcceel na nga taxoo tudd yàlla waxtaan bi passé rek waxoon naa ko ne sëriñ tubaa nee na laasima fikra li waccillahi waaye wasir bi ahmadan ala lillahi jaam bi waxtu nekk rek daa iman rek nay tudd kalimatu laa ilaha illa te saxoo ko ci laa mu ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa nettali ci benn xadis mu ne xadara malakul mawti alayhi salaam rajulan fa nasala fi kulli aduwin min aadaihi mu ne falam yajid fihi xasanatun summa saqa an qalbihi falam yajid fihi sayan summa fakka an laxyayhi fa wajada tarfa lisaanihi لاسفا بحمده يقول لا اله الا الله فقال وجب لك الجنه بقول كلمه الاخلاص نبي عليه الصلاه والسلام دفع نيك لمن ملك الموت عليه السلام دفع نيو تي بن واي بور جيل مانام بور رايكو واي مو داد خول اي تيرم ييب اموت تي بن تيرم بو خنا فك نتي لو رافيت مو داد خار خولم فك تي دار لو رافيت مو داد خول لامنيام فك لامن با موغي ساخو tooy walla saxoo tudd ak kalimatu laa ilaha illallah mu daal di wax ne wajabat lakkal jannatu bi xawli kalimatul ixlaas yàlla waral na yow aljana ngir ngay tudd kalimatu laa kon mu mel ni la cee déggee rek mooy dëgg-dëgg kalimatu laa ilaha illallah moo gën a màgg ci lépp lu am murid sax di bëri loolu Sëriñ Tuubaa amma dawaa mu dikru fa huwa akbar min kulli ma kaana murid yëg lepp la am murid di bari rek moy mu tuddu kalimatu la ilaha illa mo ci gën mo gën nak la wax mo gën mo gën lépp looy bëril yow murid bi fexé ba bari tuddu la ilaha illa mo gën ak lo meuna nek nak diko bari fexé ba delsi ci la ilaha illa bari ko mo gën bo demee ci sayyid alaaji xamar ndaw radiyallahu anhu kilifa la ci tariqatu tijaniya moom daf ne wa kullu man adama sikra rabbi bi isni shayqin aarifin fi qurbin yakunu saafiyan anil aktaari muqarraban li hadrati alghaffar mu ne képp koo xam ne tudd na laa ilaha illallah képp ko saxal wa kullu man adama sikra rabbi képp ko saxal tudd boromam waaye nag bi isni shayqin aarifin fii qurbin nga am ndigalal sëriñ boo xam ne aarifin ku xam yàlla la fii qurbin te jeex tàkk ci péb yàlla bi mu ko de day yakunu saafiyan anil akdaar yi dana mujj nek ko set ta sel ci mbolem galam kori mbolem nakh nakh yi mbolem tilim-tilim yi mboolem bàkkaar yi mbolem tak tak yi mbolem jukku yi boni mbolem jukku yi sufi mbolem jukku nan yi waa ji dana ci sel waaye nak muqarraban li hadratil ghaffari yi mu daal yi mujj jextak ci pep yàlla bi moy kuy tuddu turu boromam te am ci ndigeel serigne bo xamne arifin ko xam yàlla la waaye zi bi ta jeex tak ci pem yàlla bi ki re da fay mujjii nek ko set comme niñ ko waxe waxee te mom da fay mujjii nek ko xamne da fay jeex tak ci pem yàlla bi ci hadratul ilahiyati mune ki bu ko defee yurisuhu ilma bi duunil muallam wala bi duunil muallim dañ koy doon loo xam ci loo xam ne amul kenn ku koy xamal yàlla moo koy doon loo xam-xam mooy la waaji waxoon ca jawahirul mahaani ne tafarrada fi dunya li taati rabbihi fa awrasahu ilmul kitaabi bila raybi na tafarrada wéet na fi dunya maanaam tafarrada fi dunya mooy dëdd na àdduna li taati rabbihi ngir jàmm boroomam lu mu ko jural mu ne fa aw rasahu yàlla doon loo ko ilmul kitaabi xam-xamu téere bi bilaa ray din ci la amul benn sikk sàkk wa asra xubbullaahi fankasafat lahu xajaibul asraari sawaban xalal xubbi bi tudd si Ahmad Tijaan mu koy tagg mu ne wa asra xubbullaahi dëgg dëgg boyal na ëppal na bëgg yàlla ak tudd ko ci leneen lu moom ba mu ko defee ne mun a fan kasafat lahu yàlla wuññul ko xajaa'ibul asraari kéemtaani mbóot yépp sawaaban xalal xubbi mu nekk may ngir bëgg gi bëgg yàlla ak sax bi mu sax ci tudd ko danañ ci ñëw ci kanam insha allah ci ni ko Seyda Ali Xaraasim daal di nettalee bu ko defee mu ne wa yuurisuhu nuuran bi duuni zulam yàlla daal di koy donnloo it leer goo xam ne lëndam nekku ca biir te lëndam du topp gannaawam wala nga ne leer goo xam ne lëndam gu topp gannaawam ku dem ba jeex tàkk ci péeb yàlla bi yàlla daf koy doon loo xam-xam ci lu dul muy lu yàlla doon loo ko leer yoo xam ne lëndëm du topp gannaawam xam ne dundam gi yépp ci leer rek la koy def comme la alquran wax ne mu ne afa man ne kaane mayitan fa ahyaynaahu waaye wa jaalna lahu nuuran yamsi bihi fi nnaasi ne ki nekkoon ku dee li nga xam ne dafa deewoon fa ahyaynahu mu ne ñu dundalaat ko wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi ñu defal ko leer goo xam ne ci lay doxee ci kanam nit ñi mu ne kii de kaman masaluhu fi sulumatin laysa bi xaarijin minha bokkut ak ki nga xam ne dafa wan gannaaw tudd yàlla wala bokkut ak ki nga xam ne dafa nuur ci lëndëm nga xam ne dootu ci génn ko mu ko te boobu Seydina Omar la doon waxal te boobu Seydina Omar mu ngi doon dund ku deewoon ba pare ñu dekkal ko jox ko leer goo xam ne ci lay doxee ci kanam nit ñi te ki muy waxal ku dund la macha allah alhamdulilah loolu la muy tegtal ren mooy kalimatu laa ilaha illa lu màgg la yent bi alayhi salatu wasalaam dafa nettali benn xadis bu gudd sax mu ne yaftaxu llahu taala abwaabul janna أبواب الجنة وينادي مناد من تحت الحرش أيتها الجنة وكل ما فيك من النعم لمن أنت من يوم القيامة يالا دفي إبي بنت الجنة بين ووتي كدادي ووتي ترى الحرس أيتها الجنة أيها الجنة وكل ما فيك من النعم لمن أنت لنكتي أي خيوال يوم كان لن يهل فتنادي الجنة الجنة دا دي وحنة وكل ما فيها نحن لأهل لا إله إلا الله لب كل نيك تي قيوة تنين أجنة نيالنا أهل لا إله إلا الله تعالى وفرنا في حديث القرس أهل لا إله إلا هم أهلي نيان لا إله إلا الله نيان سما نيان منك نحن لأهل لا إله إلا الله نحن لأهل لا إله إلا الله من قيوة الجنة تنين نيالو كل lu dul ñi nga xam ne ñu ngi tudd laa ilaha illallah wala natlubu illa ahla laa ilaha illallah te duñ sàkku nag lu dul ahlu laa ilaha illallah wala yadxulu alayna illa ahla laa ilaha illallah kenn du dugg ci ñun aljana lu dul ña nga xam ne ña ngay tudd laa ilaha illallah te saxoo ko mu ne wa nahnu muharramuuna ala man lam yaqul laa ilaha illallah mu ne ñun aljana xaraam nañ ci képp koo xam ne tuddut laa ilaha illallah wala réerée na laa ilaha illallah ak mbon moom làmboo wa nahnu muharramuuna ala man lam yaqul laa ilaha illallah mun a nañ képp koo xam ne ñun aljana xéewal gi nekk si ñun araam na koo xam ne tuddut la ilaha illallah te xamul mboom mi wala bu koy tuddee it xamul mbon ma mun wa sa taqulu naaru fii la safara nag di waxee ne wa ma fiha min al asabi ak la nek ci bir safara ci ay mbugal la yadquluni illa man ankara la ilaha illallah mu ne ki nga xamne da fay weddi la ilaha illallah ak sekra bam mu làmbool rek ñoy dekké safara la yadquluni illa man ankara la ilaha illallah kenn du dugg safara loolu ña nga dañuy weddi la ilaha illallah ak ngun moom wala atlubu illa man kaza bila ilaha illallah safara ne man duma sàkku wala ñun safara ak mbugal mi nekk su ñun duñ sàkku lu dul ña nga xam ne ñu tuddul wala lu dul nga weddi nañ la ilaha illallah mbugal mi nekk su tar tar tar ñeel nag lu dul nga xam weddi la ilaha illallah ak lu bon lamboo mu ne wax wa ana xaraamun ala man qala la ilaha illallah mana ñun safara mbugal mi nekk ci lu mu tar tar tar araam na nag te ña nga xam ne tudd nañ laa ilaha illallah te xambul moom la mboo wala am taliyu illa bi man jahada laa ilaha kenn du fees fii ci safara lu dul ña nga xam ne dañoo weddi laa ilaha ak mbul moom la safara daal di wax ne walay sa xaysi wa safiri sama mer ak sama tàngoor ak sama yëjjit bi illa ala man ankara laa ilaha illallah ñeelut lu dul ña nga xam ne rek dañoo weddi laa ilaha illallah ak mbuur moom lamboo suma qaala fa yajiu rahmatullahi wa maxfiratahu fa taqul yonent bi alayhi salaatu salaam del wax ne bu ko defee nag foofu nag li yërmandeg yàlla ak njéggalam daal di ñëw di wax ne annaa li ahli laa ilaha illallah ñun njéggalug yàlla ak yërmandeg yàlla ñeel nag ña nga xam ne ñu ngi tudd laa ilaha illallah taxam mbuur moom lamboo wa naasiratun liman qaala laa ilaha illallah danañ dimbale képp ko xamné ma ngay tuddu la ilaha illallah wa muhibbatun liman qala la ilaha illallah to sopp nañ képp ko xamné ma ngay tuddu la ilaha illallah wa jannatun mubahatun liman qala la ilaha illallah muna aljana de dagan na ci képp ko xamné tuddu na la ilaha illallah ta xam bon mom lambo wa narun muharramatun ala man qala la ilaha illallah safara haram na ci képp ko xamné tuddu na la ilaha illallah ta xam bon mom lambo ومغفرة من كل ذنب لمن قال لا إله إلا الله ورحمة ومغفرة غير محجوبة على أهل لا إله إلا الله يرمان لك يا الله أنجرمان لك يا الله أنجيك لك يا الله من دون كي يرمكو كان خامل من يتود لا إله إلا الله تقنبر من لامبون كي من دون كي يرمكو يرمان لك يا الله كنك من دون كي يرمكو كنان كي كده بيلو لمي تكتل رك موي mag gi nga xam ne laa ilaha illallah mag na ko yonent bi alayhi salaatu salaam sax dafa wax ci imaam ci xadis na man yashadu an laa ilaha illallah wajabat lahu janna mu ne képp ko seede wéetug yàlla gi ci kaw ni bi rek mu ne yàlla waral na ci yow aljanna mu ne ko wa in sana wa an wa in saraqa mu ne ko wa in sana wa an saraqa donte la dafa njaalo sax wala mu sàcc donte la dafa njaalo wala mu sàcc même xam na wéetug yàlla ci kaw ni bi rek tudd na laa ilaha illallah te gëm ko xam ko saxal ko mu ne kii moom aljana rek moo war ci moom donte la dafa njaalu sax wala mu sàcc dana dugg aljana mu wax ne ma siltu asfo ila rabbi fa yasfaani xatta aqulu ya rabbi safixni fi man qala la ilaha illa allah fa yaqul taala hada laysat laka ya muhammad in fa salaa salaam dafa wax ne dañu ma di ramm di ramm jaam ñi du yóbbu aljana ba mu wax yàlla ne yow yàlla doo ma rammloo ñi nga xam ne ngi tudd laa ilaha illa yàlla na ko yow muhammad ñii moom kenn amul ci ñoom cër ku dut man wa in hiya lii wa izzati wa jalaali wa xilmi wa rahmati laa adama fi naari ahadan an qaala laa ilaha yàlla ne gëñ naa ci sama màgg ak sama tedd nga ak sama lewet ak sama yërmande du ma dugal mukk safara ke xam ne tudd na laa ilaha illallah tax mbud moom làmboo kon bu ko defee loolu li muy tegte la rek liñ ci bëgg a wax rek mooy dëgg dëgg laa ilaha mooy baat bi nga xam ne moom rek moo mën a sawee jàmm bi ci àdduna ak àllaaxira moom rek mooy kalima gi nga xam ne mooy dindi nit la dem def ci moom leer mooy kalima gi nga xam ne mooy yëkkati nit ci alam bu suufi bi yóbbu ko ci alam bu kaw bi mooy génnee nit ci mbooleem xat-xatu àdduna yi yóbbu ko ci yaatuwaay àdduna mooy génnee nit ci ñàkk yërmandeeg yàlla yóbbu ko ci yërmandeeg yàlla mu doon kalima goo xam ne dëgg-dëgg boo koy seet kalima gu màgg la li ci rot ci ay xadis yëpp mënuñ ko wax waaye xadis yu baree bari la di tegtal la rek njëriñ li nga xam ne kalimatu laa ilaha illallah am na ko ak mbon ngam làmboo Seydina Usmaan dafa nekk li mën a samixtu rasulallahi sallallahu alayhi wa dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu mu ne inni la alamu kalimatan laa yaquluha xabdun xaqan min qalbihi illa xaramahu llahu taala ala naar mu ne dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man de xam naa kalima goo xam ne benn jaam du ko wax te ko du ko wax te xam ko lu dul yàlla araamal na jëmmam ak ruuxam yépp safara mu ne sayidna omar ne ko ana uhaddisukum ma hiya hiya kalimatul ixlaas allati alsamaha muhammadun wa ashaabihi wa hiya laa mu ko man de danaa leen wax baat boobu mooy ban baat hiya kalimatul ixlaas muy baat bu sell bi nga xam ne al alsamaha muhammadun wa ashaabihi radiallahu anhu moom la muhammad ak ay sahabab taqoo woon te it ci lañ teddee nag wax baat boobu mu ne laa ilaha illallah muy kalimatu laa ilaha illallah man ashada naas bi safaati yowm alqiyaama mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam tekki na ki gën a texe ci sama ramu mooy ña nga xam ne ñu ngi tudd laa ilaha illallah kon la muy teg tegtal rek mooy kalimatu laa ilaha illallah ngëneel li ko yàlla jox joxut ko dara mboolem li yàlla digle nag baax na waaye ngëneel li yàlla jox laa ilaha illallah moom joxut ko lenn te nga ne lépp ci laa ilaha illa la dalee ci la yem ndax mooy baat bi nga xam ne maam tudd ko moo lay tax bokk ci diine bi waaye weddi gi it moo lay tax a génn diine tudd kalimatu laa ilaha illallah moo tax a dugg ci diine ji waaye weddi kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah it moo lay tax a génn ci diine kon nit ki la fay la koy def jullit mooy tudd laa ilaha illallah xam bon moom làmboo waaye la koy def yéeféer it mooy bañ a tudd laa ilaha illallah te réere bon moom làmboo kon yàlla sax boo demee ci alxuraan mi ngi wax ne wala dikrullahi akbaru wallahu yaalamu ma tasnaun dëgg dëgg tudd yàlla moo gën a màgg la wax akbaru moo gën a màgg wallahu yaalamu ma tasnaun yàlla moo gën a xam li ngeen def li ngeen def yëpp baax na waaye li gën a màgg nag ci li ngeen di def mooy tudd laa ilaha illallah yàlla dafa wax ci xadisul qudsi na ana maa abdi maa dakkarani man maa ngi ànd ak sama jàmm bi feeg mi ngi may tudd rek maa ngi ànd ak moom ne fa in dakarani fii nafsihi dakartuhu fii nafsi waxtu wu ma tuddee ci boppam ma tudd ko ci sama bopp wa in dakarani fi mala in dakartuhu fii mala in xayri minhu waxtu wu ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën bi ma tudd bu mel ni waxaat na sax ci benn xadis ne laa yaskuruna abdu fi nafsin illa dakartuhu fii mala in min al sama jàmm waxtu ma tuddee ci boppam ma tudd ko ci mbooloo malaayika waaye nag wala yaskuru nii fi malayin illa zakartu fi rafiqal ala waxtu ma tuddee ci mbooloo danaa ko tudd ci rafiqal ala mu mel ni rek ba tey lan koy déggee rek mooy solos gi nga xam ne tudd yàlla am na ko ak njëriñ li nga xam ne yàlla def na ko ci ak gënale ki ko yàlla gënale ci mbooleem ibaadaat yi gënale gi ko yàlla gënale ci mboolem ibaadaat yi sayidna ibrahim dafa wax ne azikru asron fi lfatxi min saairi l ibaadaat yi maanaam waxtu woo bëggee fatxu gu gaaw ci yàlla mu ne na nga daw jëm ci sikar ndax sikar moo gën a gaaw ci fatxu ci mboolem ibaadaat yi boo bëggee fatku ci yàlla fatku gu gaaw a gaaw mu ne na nga dawal jëm ci tudd yàlla ndax tudd yàlla moo gën a gaaw ci nit pour mu am fatku ci mboolem ibaadaat yi Sidi Aliin Xawaas nee na bi mu daawamati zikrillaahi taxmadul amraadil baatiniya min kibrin wa ujubin wa riyaain wa nifaaqin wa suuin xuluqin wa xasadin wa xillin wa xaqadin mu ne ci taxoo saxoo gi nga xam ne jàmm bi mu ngi koy soxoog tudd yàlla ci lay demee ba mbooleem feebar yi biir yi yu baatin yi nga xam ne nit ñi duñ ko gis feebaru xol yi ak ruux yi mu ne ci soxoo gi jàmm bi di soxoog tudd yàlla ci lay wéree lu mel ni rey ak yéem sa bopp ak ngistal ak naafeq ak yor jukko yu ñaaw ak añaane jaamu yàlla yi ak di leen bañ ci loo xam ne tegoo ko fenn dem bi ngay dem ba jàpp ne yaa gën nit ñi wala rëy gi nekk ci yow ak yéem sa bopp jàpp ne yow lépp loo def rek danga ci yéem sa bopp nga xam ne yow da dem ba amul dara looy def ci lu baax moo xam jaamu yàlla lañ koy tuddee ak luñ ko mën a tuddee rek loo ci def rek loo ci nekk da nga ci yéem sa bopp mu ne loolu li koy saafara ci jàpp bi mooy mu saxoo tudd yàlla ngistal nga xam ne dootoo teg dara ngir yàlla looy def rek pour bëti nit ñi moo tax moo xam da ngay joxe moo xam da ngay julli moo xam da def ay ibaadaat ak loo mën a def rek li la yàlla digal li tax nga di ko def mooy bëti nit ñi wala nit ñi di la dégg rek dégg ne nit diw ku baax la diw ku mën a jaamu yàlla la diw ku mën a maye la diw ko tabale moom rek moo la tax di def nga xam ne li ngay def bu ko kenn waxul woon doo ko def nga xam ne li ngay dem nga ba bu bëtt nit ñi li ngay def doo ko def kon li tax nga di ko def mooy ngistal wa nifaq ak nafiq nga xam ne da ngay feeñal si biti ak gëm yàlla ak tawhid mais te fekk yow sa biir yëpp nafiq la da ngay def gëmu ci dara ak jukku ji ñaaw joo xam ne yaa ngi ko am sa diggante ak nit ñi ak ji ñaaw ji nga xam ne yaa ngi ko am sa diggante ak sa borom mu ne lii li koy saafara si nit ki rek mooy mu soxal tudd yàlla ak añaan nga xam ne yow yéene woo kenn dara yow jaam nga rek comme jaamu yàlla yàlla moo lay may di may sa morom di la xañ di xañ sa morom léegi nag may gi yàlla di may jàmbi nga xam ne dafay dotteeku ci jàmbi jëm ci maanaam dafay dotteeku ci boromam ci borom bi jëm ci jàmm bi loolu doo ko yéene doo ko yéene jàmm lépp lu jàmm am rek da nga ko koy añaanee boo sañoon ñi wér ñëpp feebar boo sañoon ñi am ñëpp ñàkk yow rek nga am yow rek nga wér ñëpp wér di yow rek nga mën ñëpp tële nga xam ne añaan la goo xam ne dafay nekk ci nit ki léeg Yo, yëpp li koy saafara mooy mu saxoo tudd yàlla ak bañ gi ngay bañ nit ni tuddoo ko tek fenn gënalé gi ngay gënalé nit ni manam gi ngay gënalé sa bop ci kaw nit ni japp ne yo gën kenn da loolu la ko tere sax daf ko aaye nit ki muy jappé na mom mo gën kenn muy japp ne mom nit ñe ko gën kon yi yep febar la yo xam febar feebari biir la te likoy koy dindi si nit ki rek mooy mu tuddi yalla saxo ta saxo ko nak waaw ku ñuy wax zinnoon dafa ne zikrullahi bi xalbin sayful muridina bihi yuqaatilu aadaahum wa bihi yudaafil afat daf ne tudd yàlla ci xol ak ci làmmañ mooy jaasi murid murid yi maanaam ñi nga xam ne dañoo sóobu yoonu yàlla pour yegg ci yàlla jaasi ji ñuy reyee seen noonu mooy tudd yàlla te noon yi bokk na ca baqan alquran ne faqtulu anfusakum saalakum xayrun lakum inda baarikum da rey seen bakkan ndax moo gën ci seen borom moo gën ci seen borom ne wa bihi yudaatul afata ci tudd yàlla la jàmbi di maanaam jañee mbooleem gàkk-gàkk bakkan yi ak tilim tilimu xol bi ak kiiraay dox digganteem ak boromam tudd yàlla lay raxasee xolam bam set wecci te tudd yàlla lay raxasee ruuxam bam set wecci nga xam ne kiiraay dox digganteem ak boromam yëpp dafay dindee ko te loolu mi ngi ko mën a amee ci tudd yàlla mu ne innal fawaida dicri la tuxsa di ana zakiru yasiru jalisul xaq mu ne njëriñal tudd yàlla kenn mënu koo lim waaye daal na la doy rek nga xam ne zakir gi aju tudd gi dafay dem ba yàgg dafay tooga dafay toogaale yàlla mu ne dafay jeex tàkk rek yàlla bu defee yow bokk ci njëriñal tudd yàlla yi nga xam ne tudd yàlla dana ko def ci nit te lu dul tudd yàlla rek mënu ko ci nit waaw li gën a gaaw pour nit ki am fatxu ci mbooleem jaamu yàlla yi mooy tudd yàlla boo doon wut fatxu ci yàlla nee na lu gën a gaaw pour nga am fatxu ci yàlla mooy tudd yàlla ndax tudd yàlla moo ci gën a gaaw mbooleem jaamu yàlla yi waaw moo tax boo demee ci euh, maj moo suxraa da ko fay fekk Sëriñ Tuubaa di ko wax wasaxa an al awliya al waasiluuna maa wasiloo illaa ilaa alamin بكثرة الأعمال كالصلاة وحج بيت الله والزكاة بل وصلوا إلى ذراع الآلاف العناية لو نقصد تبعتك سنين دار يا رال أنا أيوة، نكمل أنا بني نت بقى قبقى أنا واحد مشكو قاري دون جردنا قبقى